xibaar yi ci Baolmedias ànd bi ak Baol Média FM 97 point ci xibaar yi bokk na ca la a moom Modou fi naroon a amal waaye ONG bi ñuy wax Jamra ñoo ko gàntal dañoo jàpp ni itam ay kilifa yoo xam ne ay franc yu mag lañ nekk Sénégal ñoo bëggoon ndaje moomee am ci Sénégal di dégg Mame Moctar Gueye mi nga xam ne moo jiite ONG bi nga xam ne moom la wax euh, Jamra mu nekk xibaar boo xam ne tamit Baol Média moo ko njëkk a am ci këru tasukaayu xibaar préfet joxe na ndigal a amal muy ndaje franc-maçon na ko bépp hôtel boo xam ne nekkee na ci Sénégal Mame Moctar Gueye moo ñu baaxee xibaar boobu di ko dégg euh, ci biir xibaar yi nga xam ne ñoo ëmb yi ñoom nag jamono ji dañoo mer ba futt dañoo jàpp ne njiitu réew mi Macky Sall na muy doxalee du yoon waaye tamit mu ngi koy xamal ne élection yi soreetul na soppiw doxin moom njiitu réew mi Macky Sall métti di nga xam ne dañu koy faral euh, di amal ñi nga xam ne ñoom la ñuy jàpp ci commissariat yi jamono ji loolu la ñu bëgg mu dakk benn ONG moo taxaw ab tàggat la doon amal ci wàll gu ni mel dinañ ko leeral ci biir xibaar yi mbokk lii dinañ ci boole xibaar yi biti réew ànd ceeg Serigne Fallou Diatara tàggat yaram ak Ndeye Maguette Gueye faram-fàcce gi gannaaw lii lay doon Euh, jërë ngeen jëf euh, ci ñu tàmbali ak euh, xibaar yi lu jëm ci atteb Modou Fall alliance booy Djiné moom nag ab atteb tey lañ ko fas yéene amal ci tribunal ba nga xam ne moo nekkee ca Diourbel moom Modou Fall Boy Djiné nag ñu ko doon toppee lépp loo xam ne jëm na ci sàcc ak daj yi magasin ak yeneen yu ni mel leerale ak Astel Ndiaye atteb Modou Fall alliance Boy Djiné tey lañ koy ibbiwaat ci talaata ji fële ca tribunal bu grand instance bu Diourbel moom nag Modou la ñu gën koo xam ci Boy Djiné ñi ko toppee ak sàcc daj magasin ak yeneen ci fàttali nag atteem dañu koo dàqoon li ko waraloon di ab avocat di maître Babou moo ko sàkk woon ndax nee na dañ koo yéex a xamal loo xam ne dafa jëm ci àtteb Modou Fall looloo taxoon tribunal nangul ko maître Babou lu ñu mel moom mi di Modou Fall nag mbiriñ koy toppee xewoon ci guddik juróomi fan jàpp juróom benn fan ci weeru janvier atum 2016 ca Touba ñu tegoon ko loxo waaye ci ñeenti fan ci weeru décembre moom mi di Modou Fall daal di rëcci wuti fu mu làqatu ji ginnaaw bi mu rëccaatee ca rëbës nag ñu daal di koy mujjee tegaat loxo ñi ko jàpp di élément commissaire bu Touba ñu jàppoon ko ak ay ñeneen ñaari moroomam ku sant Sow ak ku sant lii bu dee lu jëm ci ATP Modou Fall alliance Boy Djiné jotoon nañu ko déglu ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru janvier atum 2016 tey jii nekk àtte ba dinañ ko wéyal la ci talaate ji jaajëfal ko moom Astel Ndiaye doon ñu waxal ci lépp loo xam ne jëm na ci àtte Modou Fall alliance Boy Djiné mi nga xam ne moom la ñu fas yéene wéyal ab àtteem fële ca tribunal bu Diourbel Sénégal ndeke ndajeem franc-maçon mu mag mi ñu fi bëggoon a amal ndeke dafa am ay kilifa yoo xam ne ñi ngi ci réew mi ay franc-maçon lañu mu nekk kaddu yoo xam ne mam Moctar Gueye mi nga xam ne moo jiite ONG Jamra moo yëkkati kaddu yu ni mel ci waxtaan wu yaat woo xam ne da ko séqoon ak Baol Média FM Mame Moctar Gueye sax di xamle na nga xam ne noon la ñu def ba yàq ndaje mu ni mel Mame Moctar Gueye nañ ko teewlu dañu ñëw ak doole parce que boobu benn loge l woon benn loge la woon bu newoon fii Dakar waaye léegi juróom benn téeméeri loge maçonnique hmm? yu tasaare diggante Afrique Madagascar ak Europe te seen nijaay di loge maçon maçonnique ba gën a bañ diine ca France ñu di ko wax le Grand Orient moo leen parrainé moo leen cautionné ñooñu ñoo ñëw fii loué hôtelu lëmm amul benn chambre ak ñaari chambre maanaam rez de ba dernier étage King Fahd Palace ñu loué yëpp pour le deux et le trois février ne dañ fi def benn congrès international waaye ñun ba ñu ko gëstoo ñu xam ne turu kuréel bi ñu wax ne moo koy def congrès dañ ko mbubboo rek ñu ngi ko tuddee les REFRAM les rencontres humanistes africaines malgaches ay waxi tappale yooyu waaye ñoom la ba ko yëgee des associations ak imam Dame Ndiaye le président euh, des imams et des prédicateurs di am xalaat bu rafet daal di ne en quatre vingt cinq Jamra dafa tumuranke ci combat bi parce que boobu ñun rek a fi newoon amul woon benn organisation religieuse comme que léegi bari ay naataangoo ci lang gi alors euh, li mu bañ euh, au lieu mu nekk combat wu Jamra tundum nañu yaatal géew bi ñu ne leen ko kay ñun sawar nañ ci ndax mag ñi ne nañu lu kenn mën ñaar débattre ko devant ses responsables sàgganee ba congrès góor congrès euh, formation yi am fi ñun xam nañu ne am na xale yu xër yoo xam ne sago bi ñu am ñun responsable ñoom duñ ko am dafa am kilifa yu nekk fii ci yu leen ngemb hmm. waaw parce que xam nga loué hôtel par pratiquement cinquante quelques millions hmm. loolu ay borom bàcke euh, ñoo leen ngemb yéen ONG Jamra alors léegi ba uh-huh, ñu saisir état bi wax leen danger congrès bi ñoom moo am kenn ci ñoom ku ma woo ci nguur gi mais waaw monsieur Guèye Sénégal dëkku démocratie la xam nga euh, vraiment bu bu ñuy def yi dafay nañ ni Sénégal dafa dafa commencé di di xatal gañ yi alors que Sénégal dafa yaatu woon euh, bañ bañ nañ ba tuddee ko le pays de la ñu ne ko sëñ bi xam naa fi nga jëm Sénégal li fiy dajee ay congrès ay ak ak yeneen xeetu séminaire mm. du jeex mosu leen ñu dégg ci dara waaye ñii loge maçonnique ba gën a bañ diine France moo leen ngemb muy le Grand Orient ndax le Grand Orient mhm. kenn réeréwul mbir ni mhm. le mois d' avril deux mille seize ñoo def délégation bu mag seen grand maître bi jiite ko. ñu dem seeti Simone Veil. jox ko raaya bi gën a rëy ci décoration franc-maçon ñu di ko wax euh, la décoration Marianne Jacques France ñu ne leen lu tax ngeen jox ko décoration bi ñu ne mooy ministre de la santé ba nga xam ne sa jamono Giscard moom moo fi woote loi buy daganal avortement loolu mooy Grand Orient de France Grand Orient de France bi ngemb ñi mooy kuréelu formation ba nga xam ne ñoo defoon pression ci gouvernement bi pour gouvernement bi bàyyi terrain yi muy may jullit yi pour ñu tabax ay Mbaye ñii mooy ka nga xam ni moo jógoon def pression ci gouvernement François Hollande. Mm. ba ñu la loi. Mm. mariage pour tous. maanaam euh, daganal ngóor jigéen. Mhm. góor a góor di sëy. Mhm. ma ne waa ñooñu lu ñu leen di doyee fii. mu nekkoon Mame Mactar Gueye mi nga xam ne moo jiite ONG bi ñuy wax euh, Jamra ca mbir moomu sax euh, ba léegi ci la ñuy def mu nekk xibaar boo xam ne Bawol Média FM moo ko njëkk am ci senegal mu préfet jël na dogal la mu wax moo di bind képp koo xam ne yor nga ab hôtel wala yu ni mel lépp loo xam ne jëm ci ndajel franc-maçon aaye ñu ñu amal ko ci Sénégal nañ diglu Mame Mactar Gueye ba léegi. ma yëgal la ko yow Bawol Média. Mhm. parce que defaguñu ko kon yow laa jox scoop wax ak yow. le préfet Mm-hmm. saisir na tous les réceptifs hôteliers par écrit daa di leen notifier l'interdiction officielle d'héberger un congrès de franc-maçon koo lu leer la mu nekk lu leer loo xam ne euh, exclusivité la kon nag franc-maçon yi fu ñu xam nañ fa jëm waaw kon franc yi fu ñu xam nañ fa jëm mais Sénégal moom aaye nañu bépp ndaje boo xam ne franc-maçon yi dañ ko fee war a amal ah nañ bàyyi mm-hmm. ndax xam nga ñun Sénégal dëkku teranga la dëkk bu yaatu la dëkku démocratie la mm-hmm. waaye ñii fu ñu dem yàq fa diine yàq ji ko département ndax dañ yor xaalis corrompre ay ministre mm-hmm. di corrompre ay député fu ñu dem noonu la ñuy def euh, euh, loolu war euh, nañ leen xeex ba bu ñu xam jëm waaye waaye bu mu doon Sénégal mu nekkoon Mame Mactar Gueye moom sax mooy nekk ganu xibaar yi ngeen di wéy di déglu Baol Média FM 97.2 ba léegi euh, ñu wax euh, ci leneen loo xam ne jëm na ci arabisants yi nga xam ne ñoo nekk euh, kuréelu arabisants républicain arabisants yi nga xam ne ñoo nekkee ci Sénégal jamono ji nag ñooy artu njiitu réew mi président de la république Macky Sall lañ koy xamal moo di aw doxalinam baaxul na xoolaat boppam ndax élection yi soreetul nañu déglu Mamar Gadiaga mi nga xam ne moo wax ci seen kàddu. arabisants yi tey fi ñu dem yëpp wan nañu ne kontaan nañu ci li nga xamante ne noonu la président de la république Macky Sall di doxalee son parti actuellement et sa coalition ci coalition boo xam ne dafa bëgg gagner élection 2019 xëy na peut ñu ngi def ay déclaration ala été le président dès le premier tour mais je pense que c'est de la propagande bu ñu waxantee dëgg il faut que d'abord ñu l'APR ci boppam jéem a réconcilier ak moom ci boppam ce qui se passe dans notre parti c'est-à-dire c'est des c'est des c'est de première heure des responsables yoo xamante ne yore ay ndombo tànk ñu fàtte leen mel ni nekkuñu ci réew mi ñi nga xam ne tey ñooñu doon xasaka saaga barki démb tey ñoom a parti bi ñoo gën a sañ ci président de la république jëm récupéré waat ñooñu recycler leen ñëw tagaat leen ci suñ kow loolu la ñuy dund boobu léegi mbir mi du rek jàpp jël ay gros bonnet di leen dajale mesures yi nga xam ne moom la président de la république jëloon pour que jël arabisants yi vraiment ñu changer seen quotidien ay mesures yu amoon solo la waaye dañu gis ne bi ñu koy mettre en œuvre lépp tey dafa daxasoo des centaines de milliers d'arabisants yoo xam ne dañu xëy rek ñu jël seen bac annulé ko université arabo islamique bi nga xam ne moom la ñu aussi ah, depuis 2013 dañu toog toog déggatuñ ci dara yooyu yëpp ay frustration la yoo xam ne buñ ko boolee ci yi nga xam ne moom la waa mouvement national des arabisants républicains am ci biir parti bi je pense que loolu dafa jot tey ñu rectifier ko métital yi nga xam ne dañu koy euh, faral sukkandikuwaale ci ñeen fukk ak ñeenteelu promotion bu police bi juróomi fan lañ leen di tàggat ngir ñu xam lu ni mel euh, nañ leen déglu Sénégal aussi fi mu toll ci niveau démocratie ak état de droit que aussi image bu ñu joxee mu nekk image boo xam ne nii euh, sur le plan international ñëpp xam ne Sénégal dafay respecter les droits humains euh, la dernière chose aussi moo nekk ne enquêtes yi aussi pour que enquêtes yi bu ñu demee au niveau du tribunal ñu mun ko jox valeur bi ci war il la police liggéey bi ñu ci def que bu ñu demee au niveau du tribunal que ñu bañ ko taxal suuf te parce que dañ ma doon gaañ parce que dañ ma doon dóor. jàng ak njàngale démb xam ngeen Mbàkke tàngoon na jër élèves yi ñoo doon grève la doon grève nag moo di ay composition yoo xam ne dañu ko waroon a amal ndax dañoo jàpp ne seeni morom yi itam ña koy def ñoom nag jamono ji ñu bëggoon euh, wéyal lépp loo xam ne jëm na ci wàllum compo yooyee moo taxoon ñu mujjoon a mi policiers yi tamit koo xam ne daal jotoon na ca am ay gaañu grève bi les élèves ils ont raison quoi ñu ngi seen yoon ndax mënu comprendre depuis lors professeurs yi di grève sans cesse xam nga loolu nagisul tey jii nii élèves yi ñoom tamit bu ñëwee ñoom à leur tour ñu def ko tamit ils ont leur droit mm-hmm. ndax tey jii nii professeur bu fekkee ne ñu ngi grève ñoom ñu war a def composition mm-hmm. te mën naa wax ne si li ma dégg d'après li ma dégg niveau régional la mm-hmm, régional la waaye léegi boo xalaatee léegi ñoom nag ñoom loolu da leen di handicapé ñoo xam ne seen programme ko mën donc loolu day doon indi handicap ci ñoom mhm. pensée boobu daal gis naa ni mooy mooy première bi daal deuxième bi mooy li nga xamante ni tey jii nii euh, grève bi aboutir na ko mooy li nga xamante ni tey ñu ngi sànnante ay lacrymogène mhm. ay pierre élèves yaa ngi sànni xeer ñii ngi sànni lacrymogène xam nga ne naay sul loolu mën na andi euh, mën na indi ay kii yu bëri yoo xam ne tey jii nii dina andi ay euh, blessures yoo xam te ni mhm. de graves yoo xam te ni dina aboutir hôpital am ci yoon affaire yooyu xam nga naa jaajëfal ko moom mu nekkoon élèves yooyu nga xam ne dañ doon xëy di yëkkati seen i quartier jëm na ci euh, grève bi nga xam ne moo amoon démb fii ci Mbàkke Xaadim Bàkk yu tàggat yaram xabaaru tàggat yaram ay ca bàkk bàngoo xibaari tàggat yaram yi lay yéene dañ ciy ànd ak Ndeye Maguette Gueye xibaari tàggat yaram yi ñoo ngi koy dooreek euh, footballeur international bii di El Hadji Ousseynou Diouf moom dina jàkkaarloog gendarmerie ci mardi bi ginnaaw plainte bu ñu ko indil ci altine bi ndax ay menace de mort ak teggi worma bu mu def El Hadji Ousseynou dana jàkkaarloo ci talaata ji de ay enquêteur de la recherche de la gendarmerie 6 ca Euh, caserne Samba Diéry Diallo bu nekk ca Colobane moom nag dinañ ko déglu gannaaw ay tuuma yu ñu teg ci ndodd kii di Souleymane Tall di frère présidente du conseil économique social et environnemental di Aminata Touré Modou Lo moom nee na ak Balla Gaye boobu lu am la mu dem sax bay wax ni dafa mel ni bu Messi ak Ronaldo moom nag moo ngi téye défaite boobu mu amoon ci kanamu Lion de Guédiawaye boobu muy wax ne lu ko metti la Modou Lo ñu teewlu day période yoo xam ni day am ñaar ñoo xam ni mën laa ko mën a tuddee am ak Balla ak mën ak Balla mooy mm. comme Messi ak Cristiano rek quoi. bien sûr bien sûr ñëpp dañuy wax di wax di mm. boobu maa mën ci làmb noonu la woon. Mm. xam nga mu ngi jaar yoon ma jaar sama yoon. xam nga boobu làmb ji ñëpp soxla ko. ñëpp ne Balla moo di Balla moo xam nga. mu jotoon ñu bëri xam mu am ndam sama kaw. ñaanal xam tamit ñu dem xool leen. Côte d'Ivoire footballeur boobu di Toussaint Coulibaly dootul jouer ci sélection nationale bu Tunisie. nga xamante ni nag ñooy internationaux sénégalais yi ku ci mel ni Ibrahima Niang Moussa Sankare Mouhamed Diame ak Diawa Keita Balde wane nañu seen bopp bu baax a baax ci ay bés yi ñu génn ca Europe ginnaaw ay duutuñu ko juggal la dañ koy jeexalee gaynde yu Atlas bu Maroc danañ am ab neexal bu toll ci soixante-treize mille euros kenn ku ci nekk ginnaaw ba ñu jëlee juróomeelu édition championnat d'Afrique des nations ci dimanche bi ñu génn. jaajëfal ko moom ndey Maguette Gueye ci xibaar yooyu nga xam ne moo gënoon a fës ci xibaar yi tàggat yaram euh, dañuy ànd ak keneen Serigne Fallou Diatara ngir dem biti réew. ay ca suñu Saalum ba jàmm nga am. jàmm rek El Hadj euh, moo gën a fës ci xibaar xibaari biti réew yi. xibaaru bitim réew ji tey ji ci talaata ji dañ koy daal di tàmbalee fële nga xam ne moom moo di ca Tchad foofu nag euh, benn grève amal grève bi nag li ko waral mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk euh, ci euh, kujje gi ñoom nag ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kujje gi ñoom ñoo daal di ñàkk ànd gi ñu ñàkk ànd ak ci li nga xam ne moom moo di gouvernement bu Idriss Déby xam ne moom moo jiite réewum Tchad ñoom nag la ñu wax daal mooy accord yi nga xam ne ko moom Idriss Déby dara la ci deful ba tax na sax grève boobee nga xam ne ñoom ñooy secteur privé bi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci banque bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy opérateur euh, loxo ngir nag fas yéene wane solidarité ngir jàppale opposition boobu ngir ñu daal di amal nga xam ne moom moo di euh, grève boobu ca réewum Tchad ñu daal di xam ne moom moo am foofee ca réewum Tchad ngir daal di jàppale opposition bi ca Cameroun la ñu daal di dem foofu nga xam ne nag euh, benn benn attentat moo benn attaque moo fa am ginnaaw bi nga xamee ne guddik dimanche ñi ngi di waa Boko Haram lañ wax ne ñoom ñoo amal mbir mi attentat bi nag juróom-benn nit ñàkk nañ ci seen bakkan ñu ngi

benn immeuble boo xam ne dafa daal di euh, amoon benn attaque bu mu fa defoon moom Salah Abdel Salam ak ñi démb nag lañ ko daal di àtte daal dinañ ko tëj ñaar fukki atu kaso moom mi nga xam ne mooy Salah Abdel Salam ak itam ñi nga xam ne ñoom euh, ba Paris moom nag démb la doon janook ak itam euh, la ñu daal dem. nga mhm. xam ngeen ne ñoom itam am na benn décret boo xam ne gouvernement bi daf ko daal di signé la mu bëgg rek mooy képp koo xam ne ab liggéeykat nga nekk nekk foofee ci islam na nga daal di euh, salaire yi daal di tolloo muy góor mu jigéen amul kii fayeeku li amul kii fayeeku li waaye daal dañu bëgg mooy euh, salaire yi ci góor ak ci jigéen ñu euh, ñi nga di ko ñaawlu Ousseynou Ndiaye loolu bu amoon ci kër gi dina baax <laughs> salaire yi daal di tolloo incha allahu rabbi incha allahu rabbi ah, mbaa liggéey tolloo na rek ah, loolu mooy wax ji ndax jigéen ñi ah. ñoom rafetluwuñu ko ànduñ sax ci lu mel ci lu ni mel ba na daal nee dogal boobu nga xam ne moom la njiitu réew mi jël daf ko war a seetaat dem asel moo ngi ree xam naa ne waxi taleer neex na ko lool jërëjëf suñu Fallou Diattara kon ñu sant la gërëm la ci loo xam ne jëmoon na ci xibaari euh, biti réew yi dañuy fàttali li a fës ci xibaari bii réew mi El Hadji Ousseynou Ndiaye jërëjëf El Hadji Khadim Ndiaye euh, mu nekk nag loo xam ne Baol Média FM moo ko njëkk am muy euh, préfet jël na dogal bépp dajaloo boo xam ne franc yi dañ ko nar a amal fii ci Sénégal ki ñu ko eggee nag di Mame Mactar Gueye atte Boy Djiné ñoom dañ ko doon amal nag jamono ji ci tribunal bu Diourbel moom Boy Djiné nag ñu ko doon toppee ak sàcc ak yeneen yu ni mel dégg ngeen leeral yi ak euh, Astel Ndiaye ci biir xibaar yi mbirum franc-maçon ci Sénégal ndaje mañ fi bëggoon a amal la tax ñu gantal ko Mame Mactar Guèye wax na ko waaye itam jàpp na ne dafa am ay kilifa yoo xam ne dañoo nekk ci réew mi te it wàllu googee ñoom la ci wàllu googee la ñuy yëngu lépp loo xam ne jëm na ci mettital yi nga xam ne dañ koy faral di def nit ñi buñ leen jàppee ci commissariat yi loolee la ñu benn kuréel a ngi ni ne dafa lëkkaloo ak ñeneen ñoo xam ne itam dañoo nekk biti réew loola tax ak tàggatu juróomi fan lañ doon amal ngir moytu loo xam ne jëm na ci wàllu bu ni mel arabisant yi ñi nga xam ne dañoo mer ci président Macky Sall jamono ji nag li ñu bëgg moo dañ seetaat aw doxalinam ndaxte dañoo jàpp na ni yoon wa mu jaar du yoon wa gën euh, dig ngeen Mamar euh, Goudiaby ci biir xibaar yi mbokk yi li boole woon nañ ci tàggat yaram ñu àndoon ceeg Ndeye Maguette Gueye boole ci biti réew Serigne Fallou mu nekk loo xam ne mu tëj xaaj bu njëkk bi nees gis ñu dugg ak yéen ci ñaareelu xaaj Baye xibaar yi tey suñu gan di nekk euh, Mame Mactar Gueye nekk euh, vice président ONG Jamra Mame Mactar ñu ngi lay nuyu. waaw kay ñu ngi leen di fay. mboolem euh, mm. auditeur ba Média. Baol Média FM Mame Mactar ñu gis ni ONG Jamra jamono yi yéen nekkoon ngeen ci benn tournée tournée bi lan moo ko waral. waa xam nga kuréel boobu ñuy wax franc-maçon te askano fële ca Europe dañuy jékki rek daal singali Sénégal rek. Mm-hmm. te du du tey du démb barka démb la lan nga jàpp ne moo tax ñu singali Sénégal. waa yàlla daf fi def ñaari xéwal yu rëy fii bi mooy téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom ay jullit lañu. Mm. ñaareel ba yàlla may na Sénégal baat boo xam ne sur le plan international lu war Sénégal jublu rek dëkk yi ñu wër dañuy am tendance fàq topp ñu. dinañ gis si jamono APE yi les accords de partenariat économique bi Ablaye Wade lankee ne du sax ay naxe la gis na réew yëpp Côte d'Ivoire ak benn ñoom ñëpp ah comme que Sénégal si ñëw alors ñoom itam bi ñu bëggee samp seen euh, sampaat sax laay wax parce que mm. jéemoon nañ ko fi quatre-vingt-cinq mu mm-hmm. ko bëggee biñ ko bëggee sax fii ci Afrique ñu ne daal bu ñu départ ci Sénégal xam nga Sénégal dafa am base sow. congrès bu njëkk texe kon dafa yàqu woon léegi ñu lalaat pexe mu mel ni beneen congrès bu ñu doon waaj a amalaat ci Dakar dañu ñëw ak doole mhm. parce que boobu benn loge la woon benn loge la woon bu mhm. waaye léegi juróom benn téeméeri loge maçonnique hmm? yu tasaare diggante Afrique Madagascar ak Europe te seen nijaay di loge maçonnique ba gën a bañ diine ca France mhm. ñu di ko wax le Grand Orient moo leen parrainé moo leen cautionné ñooñu ñoo ñëw fii loué hôtelu lëmm amul benn chambre ak ñaari chambre maanaam rez de ba dernier yooyu yëpp pour le deux et le trois février ne dañ fi def benn congrès international hmm. waaye ñun ba ñu ko gëstoo ñu xam ne turu kuréel bi ñu wax ne moo koy def congrès dañ ko mbubboo rek ñu ngi ko tuddee les REFRAM les rencontres humanistes africaines malgaches ay waxi tappale yooyu waaye ñoom la ba ñu ko yëgee alors imam Mbaye Niang bu collectif des associations islamiques ak imam Dame Ndiaye le président euh, des imams et des prédicateurs di am xalaat bu rafet daal di ne en quatre vingt cinq Jamra dafa ñun rek a fi newoon amul woon benn organisation religieuse hmm. léegi bari na ay naataangoo ci lang gi alors euh, li gënoon mu bañ euh, au lieu mu nekk combat wu jamra jundum nañu yaatal géew bi ñu ne leen ko kay ñun sawar nañ ci ndax mag ñi nee nañu lu kenn mën ñaar ko ko dax ci gàttal ñu daal di lëkkaloo ak ñaar fukk ak juróom benni kuréel sion mhm. ñu daal di daje mhm. jël décision ñu état bi mhm. mettre ko devant ses responsables lañu waaye boo leen sàgganee ba congrès euh, formation yi am fi ñun xam nañu ne am na xale yu xër yoo xam ne sago bi ñu am ñun responsable ñoom dañ ko am. d'accord Mame Mactar nga jàpp ne euh, xeex bu mel noonu dafa dina yomb ndax dañuy jàpp ne ñu bëri ay kilifa dañ ci bokk. waaw dafa am ay kilifa yu nekk fii ci yu leen ngemb parce que xam nga looy loué hôtel par pratiquement cinquante et quelques millions. Hmm. loolu euh, leen ngemb. yéen ONG Jamra alors léegi. Hmm, uh-huh, ba ñu saisir état bi. wax leen danger wu congrès bi ñoom mu am kenn ci ñoom ku ma woo. ci nguur gi. ne waa monsieur Guèye Sénégal dëkku la xam nga euh, vraiment bu bu ñuy yi dafay mel ni Sénégal dafa dafa commencé commencé di di xatal gan yi alors que Sénégal dafa yaatu woon bañ bañ nañ ba tuddee ko le pays de la teranga ñu ne ko sëñ bi xam naa fi nga jëm Sénégal li fiy dajee ay congrès ay ak ak yeneen xeetu séminaire jeex mosu leen ñu dégg ci dara yoon ñii loge maçonnique ba gën a bañ diine France moo leen ngemb muy le Grand Orient ndax le Grand Orient kenn réeréwul mbir ni le mois de d' avril ñoo def délégation bu mag seen grand maître bi jiite ko ñu dem seeti Simone Veil jox ko raaya bi gën a ci décoration franc Euh, la décoration Marianne Jacques France ñu ne leen lu tax ngeen jox ko décoration bi ñu ne mooy ministre de la santé ba nga xam ne sa jamono Giscard moom moo fi wooteel waa buy daganal avortement loolu mooy Grand Orient de France Grand Orient de France bi ngemb ñi mooy kuréelu formation ba nga xam ne ñoo defoon pression ci gouvernement bi pour gouvernement bi bàyyi terrain yi muy may jullit yi pour ñu tabax ay jàkk France Grand Orient de France bi ngemb ñi mooy ka nga xam ne moo jógoon def pression ci gouvernement François mm. la

maanaam euh, daganal ngoor di hmm. góor a góor di sëy hmm. ma ne waa ñooñu lu ñu leen di doyee fii Rihanna ñëw na Sénégal ñu bëri am loo xam ne dañ ko ko doon jiñ yow ban xalaat nga am ci wàll googu ak lim ñu andil ay illuminati yeeg ñooñu ñëpp benn benn benn kuréel bi la rek formation yi la hmm. waa Rihanna dafa jóg ne day dimbali éducation te moom du modèle ay xale boo leen di dimbali la woote da nga koy jiital da nga koy da nga koy nuuru waaw kuy kuy kuy kuy digle cangat waaw na fekk yow ne sangu nga ba ba fekk doo ko digi cangat alors moom du modèle foo dem euh, réseaux sociaux yi muy moom muy cousin am boobu di kennelis te xale yi Sénégal malheureusement teg leen bët lool mhm. seen taxawaay dafa safaanoo ak diine xoolal kennelis kii bu mu génn clip bu bees mhm. balaay am jàmm ca clôture ba daf cee def bàkkam boobu muy lan j'ai vendu mon âme au diable mhm. nit ku wax ne sama ruu ji jébbal naa ko iblis kooku lu ñu koy dee on a rien contre Rihanna mais message yi muy véhiculé kuréel ya mu bokk musiba ba mu nekkee ak exhibitionnisme sexuel ba mu dëkkee du modèle yu baax pour suñu doom milliardu Rihanna jarul ñuy foog ay jikko yu di ko rey ndax xale lu mu gis rek mag di ko def dafay jàpp ne lu baax la xale di ko rey di ci inspiré wu ëllëg mu nar a yàq seen avenir moo tax ñu ne soxlawuñu ko fi mu ngi ñëw di di ibaadu ibaadu lu sol <laughs> waa ONG Jamra nan ngeen fas yéene taxawee ci xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum franc waaw yàlla dogal na am nañu ndam ci xeex bu metti bi mhm. parce que franc yi dañ doon menacé nee na foog bi am mhm. ñu ne leen bu amee mhm. waaw dans les réceptifs hôteliers de la Petite Côte hmm. particulièrement à Saly waaw kon Dakar ngeen bañ ñun léegi fa lañ ko def ñu ne leen waxuñu Dakar waxuñu Diourbel ak Tam dañu bëgg ñun le Sénégal bàyyi ñu suñu réew dañ koy moom suñu réew ñu yéen fa la ngeen nekk France ñu fexe ngeen hmm. ba modifier le code civil renforcé ko par la loi Pasqua de quatre-vingt-douze hmm. mu xaraamal polygamie plante moo moo moo moo dox loolu waaw loolu nag cosaan ñun itam loolu la ñu amee droit fii mais soxlawuñu fi loi wu ngóor jigéen hmm. soxlawuñu fi congrès franc-maçon soxlawuñu fi loi buy daganal yàq biir suñu sañ-sañ la looloo tax nag yàlla may nañu ndam ba dàq nañu le waxuma la ay sali Portugal ak leneen waaye ci lañu génn Sénégal bi ñëwee génn nag hmm. seen président ba ba nekk Congo nga xam ne mooy seen muxadam bu mag bi te Afrique centrale ci wàllu franc-maçon ñu ko wax Denis Sassou Nguesso Denis Sassou moom mooy le grand la grande loge maçonnique du hmm. Congo moom moo leen Sénégal nee na bëggu leen fa. Mhm. bëggu mhm. Sénégal bëggu def fa seen congrès. man Denis Sassou Nguesso ñëw leen ma fat leen fii. Mhm. ñëw leen ma héberger leen. fii may wax a yéen xeex nañu yaa ma doon laaj euh, euh, naka lañ ko nan nañu a suñu xeex contre nii rek lañ ko nar a doxalee. xeex nañ leen ba génn nañu Sénégal dem nañu Congo foofu la defee seen seen seen seen congrès fu ñu xam nañ fa jëm. tudd nga fi les diine yi. ñu naan dem nañu Touba dem a wax na benn journal bu doon wax naan ñun am sañ-sañ naan dañuy wax ci turi jullit yëpp du loolu la ñu doon xase waaye léegi nag am nañ sañ-sañ bu ëpp boobu mm. parce que kilifa diine yëpp sans exception laa la wax sëñ Muntaxa en tête mooy mujahid numéro un mm. parce que recevoir nañu deux fois ci ñaari ay bés yi ñu doon jàmmarloo mm. franc-maçon day recevoir bu mujj bi moo ñu jiite sax tàkkusaan wax fa ay seede yu rafet ci mille neuf cent quatre-vingt-cinq ba mu àndee moom ak euh, Ramadaani Lay Abdou Latif Gueye ak Seydi Abdoulaye Sy Dabakh euh, ci boobu ma la doon tënkal léegi kon moom du gan ci xeex bi mooy moom sëñ Muntaxa neuf cent quatre-vingt-cinq xam nga boobu kenn xalaatul woon ne sax dana nekk xalif général fekkoon na ko ci xeet waaw euh, boo demee Tiwaawan noonu passé Tiwaawan dem Njaasaan Canaba Ñaseen ba ci Dakar bu Médina Gounass ba ci famille Omarienne amul kenn ku àndul ci xeex bii ñuy xeex kon nag mhm. kon a ci ànd te nag suñu intérêt la mhm. ndax ñun bu ñu xalaat suñu bopp rek nañu xalaat suñuy doomi ëllëg def formation yi dëkk bu ñu jaar mhm. bu ñu fa congrès booye boo may nopp dëkk boobu balaa ñaari weer ñaari weer ñu ndaganal ngóor jigéen def na ko Île Maurice ba ñu fa jógee dañuy def ñaari weer ñetti weer ñu ndaganal fa ngóor jigéen waaw ñooñu lan lañ leen di doye fii dara waaw ah, mu kon na xeex bi du xeexu jamra rek. xeexu Sénégal bi yëpp la war a doon. xeexu askan bi yëpp. xeexu ummatul islamiyya léegi état bi tontu na. ma yëgal la ko yow ba Baol Média. Mhm. parce que defaguñu communiqué keneen yëgu ko. kon yow laa jox scoop bi. muy li may wax ak yow. Mhm. le préfet. Mhm. saisir na tous les réceptifs hôteliers par écrit. daa di leen notifier l'interdiction officielle d'héberger un congrès de franc-maçon. kooku kay lu leer la. waaw kon franc yi fu ñu xam nañ fa jëm mais Sénégal moom euh, aaye boo xam ne ko war am amal. ah nañ ñu bàyyi. Mm-hmm. ndax xam nga ñun Sénégal dëkku teranga la dëkk bu yaatu la dëkku démocratie la. Mm-hmm. waaye ñii fu ñu dem yàq fa diine. Mm-hmm. yàq ji ko xale yi dugal fa ngóor jigéen dugal fa avortement ndax dañ yor xaalis. di corrompre ay ministre di corrompre ay député fu ñu dem noonu la ñuy def. Euh, alors mu nekk ñu xam jëm fa waaye waaye bu mu doon Sénégal. ñu gis ne daal. waaw Mokhtar fan yi dafa euh, dafa sulee ko bu baax muy ñaar yooyu muy euh, franc-maçonnerie ak mbirum góor jigéen. waa xam ba ñu déggee aw fële ca Mhm. te yow yaa yaa ma koo fàttali ndax mu ñu fekkoon ci tournée. dëgg la voilà ba dañ ko euh, affaire boobu daf ñu daf ñu daf ñu fekk en cours de tournée. Mhm. waaye ba ñu jógee dama jokkoo ak imam Massamba mhm. ma ne ko na ngeen gëstu mbiru waa jooju lañ. parce que dëkk bu tedd bu sell bu day ni dëkku euh, Cheikh Ahmadou Bamba. Euh, xel walul nangu saay saay. ñëw di fa def seen i manin ndax dañuy essayer. bu ñu essayer mu nooy bu ëllëgee ñu daal yéege monté grade voilà ñoo wër. mooy leen bàyyi fu ñu seen seen seen nakk euh, ministre de la justice wax ci wax joo xam ne. Hmm. ñun dem nañ ca rajo ya jàmmaarloo ak moom ndax nee nañ ko ñu ci. waaw dafa dañuy xëy dëgg ñu ne bàyyi nañ leen. mu mel ni euh, dafa nekk loo xam ne daal euh, ñi jiite dañ ko woyofal lool tam nekk lu lu doy waar ci réew mi. ah ñu ngi koy fooye de. Hmm. te te tey suñu borom ci boppam àdduna ci yàlla du def wax waxeet lu mu wax def ko. Hmm. suñu borom àdduna ci fukki fukki fukki ak juróom-ñett ci alxuraan. joo xam ne ci wàllu boppam yàlla ñaari tur mu ngi ci sóoratul anbiya dara. Mhm. buñ ko fooyee. Mhm. parce que doo toog rek naan mhm. man sama doom defu ko. sama jarbaat defu ko. kon man eh, li ma amal solo naa aar sama njaboot déedéet loolu du la ci génn de. ndax suñu borom moo ci alxuraan ni na ngeen moytu wa taqu fitnatan na ngeen moytu sama ay natt yoo xam ne su ma koy dóor ci kaw askan. lu rek ci bopp ñu tooñ. kon nag même boo deful. na nga fexe bu ëllëgee yàlla nga naan. Mhm. ana ña waroon wax te waxuñu. jërëjëf euh, Mame Mactar Guèye ñu ngi lay sant baax di la gërëm. waa kay jërëjëf. ñu lay sant yàlla barkeel seen liggéey. ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm euh, mu nekkoon maam euh, Mactar Guèye mi nga xam ne moo jiite ONG bi nga xam ne moom la ñuy wax Jamra ñu ngi lay sant baax di la gërëm. waa kay merci mu nekkoon Mame Mactar Guèye moom sax xam xamle na ne yónnee nañu ay bataaxal boo xam ne ay image moo ca nekk yoo xam ne franc-maçon yi nañ lañ doon def ba dugal ñu nekkee ci senegal ci wàll googu nekkoon maak Mactar Gueye xam naa jombul danañ ko fësal ci site Baolmedias FM point ñu song yéenekaay jaa ngeen jëf mboolem yéenekaay yu bëri yu ñu xëy doon ña ko def ngañ dem nekku ci dun xaaf ni mbir maa ko def ñi nga xam ne damaa na ak ñoom la bàyyi ñu dox seen dox sama ñu téye ma bu ko defee daa demee lijjanti ba mënu coog xaaf borom maire bu Dakar ba tey ci laaj yéenekaay ni mbir mi li tax mu yëg si fii su ma neexoon mën na fi bañ a xaaf ne ab offre politique la tegaloon moo tax ma mbir mi yegsi fii waaye su neexoon ma ne fee bañ a yegsi xaaf ci Sud ko def léegi ñi nga xam ci ko ko bi yéene kaay ni Wade ak Pape Diop ak Amadou Ba yéene kaay bi xamal ne Ousmane Touare mu des ñi xam ñoo war a nekk seen yi ëllëg xaaf mer bu Dakar ci la tribune ni njiitum réewum Sénégal président la Macky moom moo tegal offre politique boo xam ne maa lànk mu mu yëkkati ni ay kàddu mooy caisse d'avance bi ñu ko yore daal wuti wut ak caisse Ibrahima Diop mi nga xam ne dafa bokk ci commission de réception des marchés mu ni en tout cas man li ma doon signé mu ni xaaf maire bu Dakar moo ko ko doon signé loo Ibrahima ni maa ngi doon signé ay facture yoo xam ne xaaf maire bu Dakar moo ma ko doon sant ma koy signé mbay tura ci leen si ko yéen kaay ni leen may leen ñun sunu nga ñe da cee nekk ma ne kees gi ñu ni ko ñi leen ko mosa yore laa la wax may nii leen ko mosa yore ba ci jamono yi Mamadou Diop nga xam ne kees gi mi ngi tolloo ci juróom fukk ci ay millions xaaf ci leen si ko yéen kaay naa ko man daal la ma bëgg mooy yéen ñu bàyyi leen waaw xaaf ci leen si ko yéen kaay ñi leen leen bàyyi yéen defu leen dara wal fajir yéen kaay ni ko xaaf kay maanaam mbir mi moo ko jël akimoo ko laas yéen kaay ni ko dëgg ko wér vingt-quatre yéen kaay ni ko xaaf kay dafa jël lépp daal koy akimoo wax ni moom daal du jig njaag léegi mooy njaag neen ko jël atte ko

de ñun daal li leen di mooy jàpp ne yéen dégg ne luubal moo tax ñu leen topp ay mbir politique ñun suñu ngañe dee ci nekk ma ko man sama ngañe mi ñu tim réew mi Sénégal nag idi koo fàtte idi ni man waa simi bi ñuy wax waaw couverture maladie universelle mu ni xanaa léeg léegi nag gi ni wàllu mbay moom waaw campagne gerte gi mu ne jëmul ceng di kurmbay laar jum ni ko wàllu gerte gi moom demul ceng di kurmbay laar ci diwaanu Ziguinchor yéenekaay ñu ñëw mën a wax ñii wax dara da ci am waaw mën ñaari milliards ak lu topp dong leen ameel ca man ubbi nañ banque yi xaalis ngir ñu fay leen opérateur yi dem ci banque yi ku ci yor chèque yow demal rek wala virement demal rek booy dem ñu lay fay de nanu dem ci tàggat yaram stade yéenekaay ni Aliou Cissé moom ku ko gën am problème amul waaw yéenekaay bi ne ay xoolal a maa nga ca làmb ja suñu làmb yéen kaay dikk ci sël bu ndaw bi waaw ak li piment de Fass yéen ni Ama Baldé ak a sëgg woon waaye Papa Sow li piment de Fass yoo xam ne di ko teg ci kaw Ama wàññiwu ta dal dee suñu làmb yéen kaay ñu lu ñu mel nag wañe ne combat bi dana neex ñër koo bëri fukki fan juróom-ñaar ci wéru février waaw ci stade Léopold Sédar Senghor waaw waaw amaaye papa sow tawaay jox ma samay kii maa ngi ko waaye def boppam jaajëfal ko moom El Hadji Khadim Ndiaye mi ñu doon jàngal li gën a fës euh, ci yéenekaay yi balaa ñoo tàggoo rek ab xibaar boo xam ne dañoo dab léegi mu euh, Rufisque ca fa ñuy wax Soka Bek jënn kër moo tàkk ba jeex dara génnut Fatou Camara suñu naataango ba nekkee foofee moo ñu eggee xibaar bu nu mel jërëjëf Fatou jërë ngeen jëf tamit yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doon déglu Baol Médias FM 97.2 jaajëfal euh, El Hadji Khadim Ndiaye mi jàppoon ci wàllu technique gi di leen jox dig daje ba suba incha allah que le Satan soit